Sylla seen xarit seen doom Labou Sy ñëwaat na bi nga xam ne mooy émission bu bees ñu dajale leen ko maanaam ñuy wax artiste nan lay dundee biir këram ñun nag waa VA ñu ñëw war koo bett ak Labou si ñu jugee nag ki nga xam ni mooy kër Modou Baye Fall te limisaat ñu ne ñu nekku fa mi ngi fii si Sampanlaay Club ñëw di répété léegi incha allah dañuy dugg ci biir jàkkaarloo ki nga xam ne mooy xale tëngéej bi di Modou Baye Fall nouvelle génération de Rufisque Modou bay Fall moom la ñuy dégg noonu mi ngi noonu xale baa ngi noonu ak seen émission bu bees tàkk fii lay xewee ci VA TV. ay maay sa jaam di sa taalibe def sa lu ne si sa jamaano ah waaw waaw di bëgg naa leen. mais saa ñu la mbokk yi kon nag ah, ñu ngi nii ci biir. ak si nañ yéen a ngi dégg ambiance bi ak noonu Baye Fall bi nouvelle génération de Tëngéej nouvelle génération de adduna ah li ko gars yi di waxee ñun dañoo neex lu ñu neex nañu wax nouvelle génération de Rufisque moo Baye Fall yéen a ko dégg mu ngi nekk ci cadre liggéey cadre job léegi ñu xool Modou Baye Fall jàkkaarloo moom xool Baye Fall a ngi noonu ak répété am ndeysaan Baye Fall bi loo wax. waa VA TV nuyu naa leen waa VA. waa VA dañuy liggéey. waa VA TV dañuy liggéey Ablaye Sy. waa VA nuyu naa leen. waa VA TV dañuy liggéey ku liggéeyul waaw waaw nuyu naa leen yow Babacar da ngay liggéey liggéey waaye candum day liggéey Fallou Galas day liggéey baa ngi liggéey waaw ku bëgg lu baax da ngay liggéey waaw waaw doomu Tëngéej la nu biir waa VA TV waa tonton nga ne lan tan mbokk yi sànq gis ngeen Baye Fall bi li mu doon répété ah, gars yi jël ko ñun waa VA ñu ñëw fii ànd ak moom seetsi ko bi ñu demee këram fekk ñu ko fa waaye bi ñu ñëwee fii nga xam ni mooy Sample Night Club bi ñëwee fii nañ ko fekk mu joué ak groupe am groupe ak lu joobe dal jàmm Baye Fall baa ngi noonu Modou bisimilah sànq li nga fi doon def sànq neex na torop torop torop torop mais yëg coow li yëg mbir mi ni muy demee xam nga gis traak gis lépp gis affiche yi ñu seetaan euh, estat yi ñu ne Modou Baye Fall dafay def événement le 8 mars fan la koy defee ak kan la ko tuddee ak ñan la ko jagleel. waaw salaamaaleykum waa VA TV ñu ngi ziar ñëpp di bëggee di ziar waa Tëngéej waa di bëggee waa Tëngéej baax na ñun amuñu lu dul Tëngéej fii lañ am fii mooy sunu dëkk fii lañ tiitaroo. seen doom a ngi nii waa Tëngéej ñu ngi leen ziare tons waa le 8 mars waaw ñu ngi sargal ñu ngi sargal jigéen jiital ci première daam Marème Faye Sall waa di ko tudd jigéen yi Tëngéej ji nag jàmbaar yi Tëngéej ji ku ci mel ni sunu maam ajaratu xaar mbay ma jaaga may sa joor yónni caam ay ta jaañ ndeysaan mhm. suma jigéen ñëpp waa Tëngéej gépp ñoom Ami Ndiaye taalibi Serigne Saliou bi waa Sood ak Jowaar Medoune Yoro Fall yi ak Kayda di ci woo sama jigéen ñëpp di ci woo waa Tëngéej daal waa Tëngéej premier adjoint borom dàngu sama jigéen buy mu am jom bëgg boppam nag baax torop di ci woo umita mi ak waa télé bi yëpp waa moom ñoom ñoo ñoo waa ñoom moom ak waa Nimzaat waa Nimzaat waa Nimzaat jàppoo waa Dar Salaam waa Gendal ñëpp Tëngéej daal ma kenn waa Jokul. yan artiste nga invité kan kan mooy ñëw ci bés boobu euh, pour def li nga xam ni mooy ànd ak yow ci bisu jigéen ñi invité nga ay jigéen invité nga ay góor est-ce invité nga mag ñu njëkk ña comme euh, ay Xaar Mbay ay euh, la am Sooda Maama ñooñu est-ce que invité nga leen. waaw ñooñu invité naa leen sama yaay yooyu sama maam ma jaaga may sa joor moom bis bi moom. moom mooy moom moom mooy borom bis bi ndax fii Tëngéej xaar mbay mooy Sénégal mooy Tëngéej xaar mbay moom mooy Sénégal mooy Tëngéej waaye nag di ci woo le première dame Marème Faye Sall moom lañ jiital moom lañ ciy jiital Marème Faye Sall moom mooy moom mooy lépp mooy daam bi di ci woo waa Tëngéej gépp bis bi invité nañ ci ay ndaanaan yu mag ku ci mel ni Ibrahima Mbaye Soppe sunu nijaay la mi ngi day ñëw ci bis bi dina ci def spectacle jigéen ñi après ndaanaan yi dinañ yéeg wane seen bopp tëngëj gépp ndax affaire bi tëngëj la ñun amuñu lu dul tëngëj fii mooy sunu réew fii lañu tiitaroo ñun fii lañ am tëngëj di bëgg waat réew gépp nag bàyyiwuma kenn bëgg bu baax di la bëgg tons sama manager yow yaay manager yow xam nga lépp jërëjëf yàlla na sa jàmm yàgg. kon nag euh, mbokk yi kooku mooy Modou Baye Fall nee na am na événement le 8 mars fi nga xam ni mooy euh, cercle Maurice Gueye loo loo nga ko wax waa Sukusim ñuy sponsoram ak ki nga xam ni mooy Go Assurance Go Parfum ak euh, yeneen yeneen frère am yi nga xam ni ñu ngi fii di liggéey ci wàllu tailleur ku mel ni Cheikh Naar. Cheikh Naar mi ngi fi moom mooy téyeram moo koy ñawal Maguette Sarr tamit mooy téyeram moom tamit moo koy ñawal ak ki nga xam ne mooy ndigal waaye am nañ keneen koo xam ni moom mooy euh, moom mooy lépp groupe bi muy Ablaye Sonko mu ngi ne ma koy seen arama woo ko mu ñëw salaamaaleykum nuyu neen ñëpp buñ limee dañuy juum moo tax ñu ne salaamaaleykum voilà comme réewum teraanga moom duñ ne salaamaaleykum rek bàyyi ñu kenn mm-hmm. nii nag ñu ngi dëmmal événement bu am doole mm-hmm. muy journée mondiale de la femme mm-hmm. ku ne journée mondiale de la femme dañuy sàggal suñuy yaay même bu dee liir bi la sax sunu yaay la ndax hmm. jigéen mooy yaay. daanaka nag ba mu ko defee ñu indi artiste bu mag. Hmm. ku ñëpp ràññee tëngit ñëpp ko bëgg senegal sax laay wax léegi ñëpp ko bëgg. Hmm. si baatam bu neex. ak mën waayam. ak yaruteem. comme gis jox na la cër. moo war a tey jii ñu bàyyi suñu activité yëpp ànd ak moom te ànd ak ku jara àndal muy Modou Baye Fall ndax bés bu yuuxoo ñëpp xam ni ndaanaan a yuux. su waay ñu xam ne ndaanaan moo way kon kookoy Modou Baye Fall. 8 mars nag. tons dañ ko def spécial. pour sargal première dame. ndax bu ñu nee première dame rek. mais bàyyiwuñu ñu jigéen. bàyyiwu benn jigéen. voilà mhm. moo waral tey jii bu ñu indee première dame indi ko mel ni yoon ci am. Mhm. dafa xàllal yoon jigéen. Mhm. ne jigéen nii lay demee jigéen dafa war am gëm-gëm am fas-fas. demal boppam bu mu xaar daray góor. ndeysaan voilà kooku a ngi ak Ayta Diagne. ak Ayta Mm-hmm. ñooñu ñëpp waaw Assa Diop premier adjoint au maire xam euh, mm-hmm. kooku borom baax la jigéen ñooñu dañuy joxe motivation yeneen morom bi seen yeneen morom bi jigéen ñi Mbaba Séeri euh, Séeri Góor euh, Go Go Parfum waaw Go Assurance xam nga ñooñu waaw ay nit ñu baax neen te bëgg bëgg jàpp si événement te événement bi nekk événement bu ndaw de mm-hmm. ndax bu ñu si lii neen laalaat leen du rëy inchaallah du du film lancement série bi la ndax film dafay jeex gars yi naan film bi kañ lay amati ab mhm. série lay doon. dañuy tourné mu jeex ñu tourné waat. def ko ay saison yi saison moo waral ñu tàmbali fii si Tëngéej bu woon waa Tëngéej seen doom ñëw na li ñuy ñaan nag mooy waa Tëngéej ñëpp génn. Mhm. jàppale seen doom te xam ne Tëngéej dëkku aar la ku mel ne Adja Xaar may may jaaga tey ji su woote woon kenn di jaru kenn ñu reewoo mhm. kon tey ji seen doom bu wootee na ñëpp ñëw. bàyyi ñu kenn nag ñu ngi am nag ay sponsor ku mel ni Sokosim. moo ñu jàppale moo ngi ñuy jàppale bu baax si bés bi. Mhm. Tifa Shop. Tifa mu ngi jàppale bu baax tamit si bës bi. assurance go assurance tamit. ak reesal ak reesal ñu ngi ñuy mhm. jàppale bu baax a baax. Mhm. kon ñun daal duñ amul leen lu wax. jërëjëf ba lawit incha allah. Modou xar Tëngéej. Mhm. fukki pe li naan li naan borom fukki penc ak ñaari. fukki penc ak ñaari waaye Modou dina ko xar fukki penc ak ñëpp génn ñëpp génn waa ñëpp ñëw. waa waa bëggee ah. a def ambiance. waaw jàppale ko parce que suñ doom la. mais mm-hmm. ndax nga xam ne mooy suñu yaay. Mm-hmm. Euh, yaayu Modou moom itam dina teew ak soxnaam. waaw waaw ah, suñu yaay nag. Mm-hmm. suñu yaay ndey seen kenn mënu kenn kenn du wax dara te te te du jiitu. ndax bu ñu ne saagal jigéen ñi mhm. suñu yaay njëkk a tax mhm. ndax boo demee sa kër ga yaay nga fay fekk mhm. ndax jigéen mooy teral jigéen ku boo duggee si kër nuyoo sax góor fay jigéen fayul taxawal sa buntu ba jigéen fay ndax jigéenee jigéen mooy teraanga te sunu yaay nag dañoo bëgg comme gis jàpp ne la comme doomam moom mooy premier invité moom lay njëkk a ñëw moom lay njëkk tegal seize nee ko yaay ñëwal toog bisimilah suñu soxna moom amuñu fayam dañ koy bàyyi ak suñu loxoy borom rek suñu borom fayal ñu ko sàmmal ñu ko. Mm-hmm. ndax tey ji jabar mooy dooleel borom kër. Mm-hmm. ndax tey gis gis nañ ni mu ngi ñuy jàppale bu baax a baax. Mm-hmm. fu lu ñuy dugg ak lu ñu duggul lépp. bu ñuy tëgg du nelaw chaque vendredi bu ñuy tëgg du nelaw boobu ba nit ñi ñibbisee. ndeysaan waaw ko comme soxna soos da nga xam ne am nga soxna su mat soxna. soxna su toog. ba mu ñëwee mu ngi boole nit ñi. muy aaw buuru këram. waaw aaw buuru këram di yaay di xale bu baax di xale bu yaru. Mm-hmm. moom tamit jooja mbaay euh, jooja mbaay di yaayam. maman jooja. maman jooja moom tam ñu ngi koy nuyu. Mm-hmm. moom tamit. Euh, moom international la. moom moom moom daanaan la moom. Mm-hmm. jooja mbaay moom fan yee moom fan fan yee xaw na maa rey bi ñu dajee émission. kon nag laay jërëjëf kontaan nañ ci yow. yoo nga xam ne yaay lépp Modou Baye Fall kon nag mbokk yi mi ngi noonu loolu lañ lay indi loon fi nga xam ni mooy fii euh, ci Tëngéej ak Samp Nakel ak Modou Baye Fall ak groupe am ak lu joobe dal jàmm ñuy xaar nag li nga xam ne mooy 8 mars bu ñëwee incha allah ñu fekk ko fi nga xam ni mooy cercle Mouskay ànd seex moom def moom ak ambiance ak waa VA TV. ndeysaan mbokk yi ba léegi ah, ñu ngi nii toog ak ah, waa group ak lu joobee dal jàmm ki nga xam ni mooy ah, chef d'orchestre mi ngi nii muy puy puy ci loo nekk. waaw maa leen di nuyu. mbaa si jàmm. yàlla bu baax dégg na da ngeen waaj bis bu rëy. tuddee ko première daam Marème fay sàll bis bi bis bi nan ngeen koy waajee. waaw gis nga sànq ba ñu ngi si répétition yi ñu ngi koy waaj bu baax a baax. Mhm. waaw di ci woo population rufisquoise yëpp. Mhm. waaw di leen wax ni bés bi seen bés la daal. Mhm. waaw te kiñ ko tuddee jar na ko. jar na ko waaw maa ngi woo jigéen ñëpp surtout jigéen ñi parce que bésu jigéen ñi la. waaw di leen woo ñoom ñëpp. waaw di leen waaw di leen ñaan ñu teel a ñëw. di h mu fekk leen fa. waaw parce que moom. yan ambiance mooy am fii. bëri na ndaw ndaw xam nga euh, baara mbay lépp a ngi ci biir kon daal kon daal kon daal suba jigéen ñi kon kon kon suba góor ñi ñooy togg wala ñooy def lu ñu def foog góor ñi togg nag eh. foog góor ñi togg de baara mbay ji ko koy def ah mais non góor ñi foog ñu baara mbay tamit eh. waaw mais jigéen ñi euh, ndaw rabin balaa leen di bàyyi eh. waaw góor ñi nga baara mbay suba non maa ngi xool. xool <laughs> kon baax na kooku kooku kooku mooy puy mi ngi noonu léegi nag ñu dem si nga xam ne mooy ndooy ndooy ngi nii ah mooy ah, mooy suñu grand ah du suñu mag du suñu lépp di ku baax di grand bu yaru nag ah. sama grand la moom mi ngi noonu ndooy ci loo nekk ak sa groupe ak lu joobee dal jàmm yaa ngi noonu di bëggee ñu fekk leen ngeen répété moo doon ah, berte sama artiste. Modou Baye Fall mais nekkul këram ñu ne mi ngi répété mu ñëw fekk fii si sample fekk leen nag ngeen di liggéey ak li ngeen di waajal. nag noonu lañ koy dundee bés bi. waaw mais maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp nag ni ñu koy dundee mooy ñu ngi ci kawam ñu ngi ci répétition yu méttee métti di waajal bés bi xam nga le 8 mars dafa rëy. dafa rëy mars jigéen ñi ñoo ko moom. Mm-hmm. dañu war a xëy ñun lal lal yi. Mm-hmm. bale foweere dem taal. duggi marché lañu njëkk a def dem taala ah. bu ñu fa jógee na xoolal ñëw fii toroxal seytaane waa yëngal bu baax waaw noonu lañ koy jàppee kon daal lu marché daal du yomb non du mënul yomb du ba ah. jigéen du yomba jigéen ñooy suñu yaay jigéen ñooy ñu jur lu ñu am jigéen ñi la mhm. jigéen ñooy suñu soxna kon warul yomb du ma sa yomb ah. waaw dañ koy kon loolu duma la ko duma la ko duma nëbb la kon milieu la waaw noonu la demee nag gars yi kon nag yéen a ngi déggoo min yu léegi nañ ñëw ci ki nga xam ni mooy kiy tëgg sabar yi muy xaadim ah mi ngi nii ah di xale nag bu am talent di xale bu baax di xale bu neex min yu min laa la min duma la ko duma la ko nëbb la mais xaadim daa mel da ngeen di préparé bis bu rëy tuddee ko say say say say say mama Ayta Diagne ah, ah Assou Diop ah. ñoom ñëpp ñoom wax xale yi dàngu yëpp fas yéene sàjj nga xam dañ ko tuddee madame Faye Sall ak Yoni Thiam lan nga xam ci bés bi ak loo si nar a wax. waa salaamaaleykum adduna salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum waa VA TV ah. noonu la n'est-ce ah, ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di di nuyu téléspectateurs yi di leen sant. xam nga nag 8 mars. ku ne xam na ne dañuy sargal jigéen ñi. Mhm. surtout suñuy yaay. ndeysaan ngeen ñëw nag fekk ñu ñuy répété. Mhm. moo du Baye Fall. Mhm. donc ku mën a way nag. mu ngi leen di jox dig daje le 8 mars. suba cercle Maurice Gueye. bu ñu xëyee ñun góor ñi nag laa wax. nañu defar ndekki yi defar ko defaral ko jigéen ñi. togg añ yi. defaral ko suñu yaay yi defaral ko suñu jabar yi. 5 heures. ñu ñëw tase fii cercle waxtaanee ko ça va chauffer du yomb. mais lan ngay wax ci sañse yi sañse suba. suba dina mel ni ba ngóor jaayee mbaam ba ne ndeysaan barki Serigne Touba dama ne loolu min yu la. suba min ko min duma la ko nëbb la suba na ñëpp def ay garam bu yu ne yu yu yu mel ni France. ndeysaan suba nax du yomb parce que nag ki ñu invité. Mm-hmm. ki ñu tuddee bis bi. daf mm-hmm. koo jar. Marème Marème fay Sall. première dame Aïta Diagne Assou Diop Dial ñooñu dañoo doon ay jigéen ñoo xam te dañoo mën góor ay yónni caam suñu yaay ji yàlla na jàmm yàgg daal suba nañ ñu leen jox dig daje suba cinq heures ñëpp ñëw ñu waxtaanee ko incha allah ah waaw Maguette Fall mu baax mi Maguette Fall mu baax mi maire Maguette Fall mhm. mu Adja Xaar Mbay ma jaaga may ñëpp a ngi si biir eh, sama yaay mu ngi si biir sama yaay ami mu ngi biir suba dara du yomb Modou baay Fall moo koy yëngal suba mo suñu yaay ndey seen mu baax mi yaayu Modou yaayu umu xayri mhm. suba nag du yomb na ñëpp ñëw rek ñu waxtaanee ko incha allah jaajëf. amiin tam le 11 am na loo waajal de. waaw le gi nag bu doon ko fàttee. Hmm. waa waa bu ñëwul ma baleen. Hmm. VA rek VA ñoom ñoo xew ci jamono VA hmm. TV. ca kaw ca kaw. waa kon nag léegi nag dañuy seeti ki nga xam ni mooy kiy tëgg tama. dama bëgg nag bu subaa. congoon. mairie noo amul ankay mairie damaa bëgg na ngeen teel a ñëw ndax dana mel ni tufe jaan dana mel ni mbojjum kaani tusoo ligi day bërit avec moo Modou baas Baal tout est possible ndeysaan te man la la ndeene eh. je batee la tama incha allah je guus kungul à la cercle Maurice Gueye mooy guus kungul je l'ai fait à la cercle Maurice Gueye je la daje de tout le 8 mars c'est c'est c'est demain. waaw ah, c'est demain c'est demain. aujourd'hui c'est le. aujourd'hui c'est le 7. demain dana neex dana yëngu sarax rajaban sax dana fa am lépp dana fa am lépp lépp lépp lépp dana fa am na ngeen ñëw nag. a waa VA dikk leen wasalaam. kon kontaan naa Ndeye waaw yow nii nga ma def kon baax na léegi nag dañuy xool ki nga xam ne mooy Aziz moom tam mu ngi nee moom tamit di préparer le huit di préparer le 11 ah. Aziz a ngi noonu moom doog ñëw doog a jugee Sorano moom tamit mi ngi noonu ah Aziz si loone la 11 maa ngi koy dégg de maa ngi dégg la 11 te yaa ngi préparé le ah, yow yow daa mel ni ñaari bés nga am bis bi bis bi na ngeen koy bay fan yëpp ngeen di répété euh, di xam nga mooy loolu bi tuddee ko Marème fay tuddee ko Aïta Diagne ah Assou Diop Dial yónni Thiam bis bi euh, ak Modou ak ak Modou Baye Fall lan ngeen nar lan ngeen nar. waaw avant tout maa ngi nuyu ku si ak sa sant. di ziar ñëpp di ziar bépp jigéen bu nekk ci kaw suuf di ñaanal jigéen ñi yàlla na leen yàlla defal jàmm ndax euh, ñun jigéen sag la ndax man li tax may wax loolu mooy bëgg gi ma bëgg sama yaay te defe naa ne ni ma bëggee sama yaay noonu la ñëpp bëggee seen yaay bés bi nag ñu ngi koy waaj ni ñu ko war a waajalee ndax pour lan jigéen ñi ñëw ñu bégal leen moo du way ñu tëgg mu neex ndax jigéen Euh, jigéen lu yàlla bëgg la kon ñun dañoo war a fonk jigéen bëgg jigéen te ñoom amuñu lu dul seen bés bi gars yi nag ñu ngi tëju di liggéey nag liggéey bu sérieux nag comprendre nga kon nag dañuy ñaan yàlla euh, suba ak jàmm ñu yegg ci jàmm ak salaam li ñu jot liggéey fii yëpp ñu bégal ko bépp jigéen mu ñëw cercle Maurice Gueye ah ñu ngi koy waaj daal bu baax daal. léegi la 11 nag le 11 kan ak kan le 11 lan ngay pare ak ah, waa waa VA lan nga lay di wax di ñu ñëw wala mooy loolu. ah waa VA moom. a ah, waxuma bi ma bi ma ñëwee takk rek gis leen. Mhm. laa am envie. ñu ñëw ndax dama gis liggéey bu set bi ngeen di liggéey. ndax man euh, gis naa bu ne. waaye macha allah. bu setul woon tamit du ma ko wax. maa ngi leen di tàllal loxo di leen woo tamit sama bés. nañ ñëw dooleel ma. jàppale ma ndax sama bés du bésu Aziz bésu tëngéej la. ndax man bu may oote duma oote ngir man. ndax kan nga ko tuddee. waaw man nag maa ngi ci fas ne di ci sargal sama grand frère. waaw muy Pape Moussa Sonko. le du peuple. artiste international. di ci woo tamit waa bale national du Sénégal mhm. ndax tey jii man ballet national laa ne la Linguère fa liggéey Sorano fa laa ne ndax ndax man euh, moom ma sama man lépp lu ma mënti def fu ma mënti dem Sénégal lay représenté mhm. comprendre nga mhm. maa ngi ciy woo nag télé bi ñu ñëw tamit dooleel ma ubbil naa leen porte yëpp waaw waa VA daal ubbil naa leen porte yëpp na ñëw jàpp ci bés bi nag ndax la onze spectacle mooy am du tànn biir spectacle ndax euh, dafa doon programme boo xam ne defe naa ne international la mhm. nag guinéen ba guinéen bee ngi toog di ma xaar mhm. ah italien bi mhm. ah, japonais bi te effectivement ñoo ñëpp ñu ngi toog di ma xaar kon foofu dafa war a doon international du Sénégal da ñoo ci war a gis seen bopp ndax tey jii li may liggéey pour le onze du pour Sénégal kese dama ko tas monde bi yëpp ña war a mën a seetaan ci internet bi ñëpp mën cee gis seen bopp parce que façon rythme bu ne laa nara a dawal dinaa laal fépp dinaa dugg Afrique génn Afrique dugg Europe dugg asi kon nag loolu du programme boo xam ne nag te ngéej ko moom wala lii ak léeg-léeg. te te loolu fan nga ko jàngee Sorano bi nga nekk nga ko jàngee wala wala dafa nekkoon ci wala. waaw am na loo xam ne nag euh, moom soraano laa ko jàngee ndax tey jii euh, bi may xam-xam euh, du doy. bi may dem Sorano boobu yàlla dafa def ñu soxla bale tëggatu sabar yàlla def ko ci man ma ñëw fekkaat fa leneen bi ma sama première jour Sorano sax dama mel ne ku nekk ci beneen monde non mais nag loo gëmmu jariñ la man nangoo doon taalibe nag jàng fa lu ne nag tey jii ma jox la exemple su ma yoree sóoru baa di tëgg da nga naan Casamance laa juddoo musuma dem sax Casamance xaw ma sax yoonu Casamance hmm. nit di di dem États-Unis hmm. man noonu laay rêvé dem Casamance ak Gambie hmm. parce que tey jii am ba parce que bu dul dara sax tey jii yor naa diplôme yoo xam ne Europe mu ngi ci Afrique mu ngi ci mais dew ma Casamance dew ma Gambie te pourtant laaj nañ ma loolu ma leen musuma faa dem comprendre nga te tey jii xam nga euh, nit daal Euh, boo nekkee ci kaw suuf ne lii nga gëm lii nga bëgg da nga war a mën lépp man defe naa ne euh, niveau bi ma toll nii der loo ci xalaat rek lu war a mën a muur ci der rek dama ko war a mën a man mais nag maa ngi ciy góorgóorlu na mais ba léegi damay jàng nag managuma ba léegi damay jàng nag quoi waaw damay jàng ba léegi nag waaw damay jàng ba léegi nag mais nag soraanoon moom bari na lu def ci man nag waaw lu bari nag man dem fekk fas ay maestro ñoo xam ne waaw chaîne bu la yéeg nañ ko mhm. mais nag ma nekk seen ginnaaw di root di root di root mais tey rëccuwuma ko. Mhm. tey rëccuwuma ko. waaw rëccuwuma ko tey mais maa ngi sant yàlla di gërëm waa tele bi nag quoi di ñaan seen tele bi tamit. Mhm. yàlla ci yàlla teg loxo. waaw fi ngeen bëgg mu yegg fa yàlla na ko fa yàlla yeggale ci barke Seydina Mohamed. waaw di leen ko ñaanal yéen ñi fay liggéey yéen ñëpp yàlla yàlla leen yàlla teg loxo yëkkati leen ba ci kaw. ci barke Seydina Mohamed. moom kon nag mbokk yi ah, bu leen fàtte ni kii ki ma doon waxal alaaji la moom dem na maaka siyaara jële yonent bi muy Aziz ah ñëw continuer di def ambiance mooy loolu kii nag ah, nekk Sorano alaaji Mbassu Ngom di baayam muy xale bu mën a tëgg ah di tëggal Modou Baye Fall di ànd ak gars yi Aziz kontaan nañ ci yow le onze incha allahu rabbi waa VA dinañ ñëw teew ah couvrir bés bi ànd ak yow ci bés bi ah ànd ndox yow ci fête bi bëgg ndox yow kon nag mbokk yi loolu nañ leen indiloon fi nga xam ni mooy fii si Sampal ah ak Modou baay Fall ak groupe am kon nag incha allah jërëjëf kontaan nañ ci yow ci beneen émission ak beneen page kon nag mbokk yi Peace and ñoo far ayca ñu dem kañ ngeen teew biig du ma ko nëbb